ginnaaw biñ ci amee ndigal euh, ci sëriñ Muntaxa Mbàkke euh, xalif général des daa daaira xidmatul xadim di kuréel gi setal lépp lu wër jumaay Tuuba euh, guddik àjjuma gune war a amal inauguration bu rëy ci ay poubelle yoo xam ne ñi ngi ko defaree ba bitim réew ci anam gu mucc ayib waaye itam ci qualité boo xam ne néew na lu ñu koy gis ci wàllum poubelle menuiserie yi nga xam ne ñoom ñoo doon a poubelle yi liñ ñu xamal mooy mësuñoo gis xeetu poubelle yoo xam ne inox lay doon. waaw di wax si matière bi muy euh, inox inox moom mooy matière bu baax la mooy comme xeet bi moom ndox yebu ko te du nekkul lu weñ matière boo xam ne bu xumaat te matière qualité bu baax la boo xam ni amut ay xumaat amut di gaaw te yàqu daal naaj mun si moom dara du furi ni mel nii moom lay mel. moom moom ba xanaa mu toj wala mu mu yàqu la mu def leneen waaye moom amul changement du changé. moo tax euh, matière bi ñu def muy muy inox bokk na si matière bi gën a seer si weñ fi mu ne si weñ moo si mooy gën a seer si si weñ ndax poubelle yi fi boo ko doon calculé rek benn poubelle bi rek maanaam xaalis mënul mënoo mënoo mënoo xam fu mu toll ndax tool boo xam ne tool boo xam ne cent quarante la la cent euh, quarante mille lay jar te euh, amul fii te nekku bu mel ni ba am dessin bi kon kooku mënoo mënoo mënoo mënoo mënoo wax kon njëgu njëgu njëgu njëgu kii bi waaw kon euh, matière wu daal mooy matière bu baax a baax te te mu ah déedéet déedéet mosuma mosuma ko gis moom poubelle lu mel ne inox ñu ko def poubelle mosuma ko gis moom waaw mosuma ko gis moom ay cause gis naa gis ak galvanisé gis naa galvanisé mooy comme ne si jumaa ji galvanisé la galvanisé day xumaat ndax boo ko móolul fi mu day xumaat te inox boo ko móolee du xumaat kon bokkuñu inauguration bi nag ñoo ngi ko jàpp le 19 mai 2022 di tombek alxames bu 17h jotee daayira xidmatul xadim demoon ci kilifa yu mag ci Touba pour gaaral leen liggéey bii ku ci mel ne samat Abdou Samad Soyen bu bi ñu demee lii la ñu wax ci liggéey bi. waaye li daal mooy sant naa leen gërëm naa leen. te danaa def li ngeen wax incha allah. incha allah waaw fexe ba julli sa jumaa ja takkusaan ba sëlmale ànd ak yéen ci liggéey ba ngeen yaay ma ngeen ko bëggee ni laa koy def ngeen xam ne ànd naa ak yéen ci lépp kenn defal suñu bi lu gën a rey setalal ko dëkkam bi ak jumaam ji maa ngi leen sant bu baax a baax a baax te ànd ak yéen ci lépp noonu laa koy defee ni ngeen ko bëggee rek incha allah incha allah noonu itam lañ ko defee ci sëriñ Dan Mbàkke mu Cheikh Abdoul Ahad Mbàkke moom it mu yëkkati ci yi kàddu xidmatul xadim kon asalaamaaleykum wa rahmatullahi ngi nuyu bokki julli yi fi daje yëpp rawat na sunu bokki taalib rawatina nag waa daayiratu xidmatul xadim bi xam ni seetal jumaay Tuubaa ji ñoo koy def ci guddi ajjuma gu nekk maanaam guddi alxames ba seddi ajjuma ñëwoon ngeen fi ci ay jamono ñëwaat fi te jii ñu ci ci ay taxawaay ñu bëgg am kàddu yi seete rek yuñ ci sànni yoo xam ne noo koy waxaaleel sunu bokk yëpp di ko waxaaleel bokk jullit yëpp di ko waxaaleel bokk taalibe yëpp moo di di leen seereel seen positif ci sëñ Tuubaa di leen xamal ni li ngeen di def lu ko gën a rii ci àddina amut ndax yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam mi nga xam ni lépp sëñ Tuubaa moom la dafa waxoon ci addis ni kansul masaajid yi mu xóorul xóor yi buub jàkk mooy canuk jigéen yi xóorul xëy nii kon nag yéen ñi ci sax guddeeg bëccëg rawatina di ko def ci fil li sëñ Tuubaa gën a bëgg muy jumaam ji nga xam ne moo doon ndigalam ci kaw suuf yàlla baaxe leen ngeen di ay ndaw sunu borom xeer leen ci liggéeyal sëñ Tuubaa tànnal leen tam seetal juma ji te lu ngeen ciy defit ci gannaaw ndigal ngeen koy defee tàmbale woon ko ci sëñ si di Maxtaar baag si Cheikh Mouhamadou Mokhtar sëñ Cheikh Mouhamadou Mountakha yàlla na ko fi yàlla yàggal ngeen ci dox doxin bu rafet woo xam ne ba ngeen tàmbalee ba nëgë ni pas-pas rek lañ gis ci yéen yàlla dogal nag seetal googu ngeen di seetal jumaa ji jamono bu ne ngeen di bëgg xam ni Sëriñ Tuubaa toll ak ni mu day lu gën a yelloog Sëriñ Tuubaa ngeen jëkkoon a def nag ay tuurukaay yoo xam ne képp ko war jumaa ji loo yor tamit taq-taq wala dara nga war ko faa def ngeen defoon koy kaw su teg ko fa tey jii ngeen soppiwaat ko xam ne Sëriñ Tuubaa la mu gën a yellool mooy lépp luy teraangay lislaam rek ci Sëriñ Tuubaa la yàlla ngeen dem nag wuti ko ci bitim réew def ko loo xam ne du soppeeku du xumaak du yàqu kon nag taalib ginnaaw yéen a ba andi ko fi nag mboolem ñu yaakaar Sëñ Tuubaa nañ ànd ak yéen nag waggarle leen ko mooy barab bañ ko teg kenn ku ne ci jege jumaa ji loo yor te war ko wacc na dox ba àgg ca ubbi ko tabal ko fa ubaat ko door a jàll loolu ci liggéeyam Sëñ Tuubaa la bokk boo xam ni eh, yéen ñii ko wuti bennoo ba def ko waru leen noo gën a sonn ci Sëñ Tuubaa yàlla da leen tawfeexee la ngeen sabab ngeen nekk sabab si waaye nag la koy sàmm di ko saytu nag noo ko war a def hmm. loolu nag ñu ngi ciy soññ bokki bokk yëpp ak bokki jullit yëpp te xam ne jumaay Touba ji lu ci waay yëngu na ko na ko sant yàlla ndax sëñ Touba bi mu koy santaane dafa waxoon ne sunu borom may na ma ko ba noppi su ngeen ko defee fari laa ilhamdu su ngeen ko defut sunu borom xalset naa wàcc ay malaayka ñu def ko. ba tey dem nañ ci ki nga xam ne moom mooy Serigne Modou Mamoun Bousso mi nga xam ne moom mooy jiite ajjuma ji ci jumaay Touba. daayiratu xidmatul xadim ñuy liggéey ci jumaay Touba ji ci set ak set set set set ak lépp lu aju ci luy taaral jumaa ji ci wàllu mbooloo mi fi ñëw di fekk Sëñ Tuubaa di jaamu yàlla fu waay jot rek man faa toog lépp set lépp leer ba kenn du am foo xam ne fii bëgg nga faa toog te doo fa mën a toog ngir salte mbaa yu noonu moom loolu mooy seen taxawaay ñu dolli ci nag fab seen doole ak seeni pexe tam ba ci bitim réew ñu wut fa ay poubelles yoo xam ne lépp loo xam ne lii luñ génne ci jumaa ji li ko wër la ak ba ci mbedd yi socc moom mu ci nekk rek euh, la tàmbalee ci jumaa ji ba mu sore ba wër ñu fa jege rek ñu di ko fob di ko def ci poubelles yooyu poubelles yi day wër day wër jumaa ji ñu taamu nag taalibe yépp ñépp bokk positif ci bëgg sëñ Tuubaa ak liggéeyal ko ñoom nag dem yàlla tawfeexal na leen ci lu mel nii bañ di ko taxawee ñépp lañ ko defal moo tax suñ mun sant ci bu baax doo leen ci ndigal neen nañ ko indi ci jumaa ji biñ dikkee it ñëw nañ fii ngir bëgg ma seeral liggéey boobu dañ lay sant ñaanal la te la nga nga ànd ak ñoom ñu ko def ci ci sellal ga ak setal ga ak sàmm ga ñoo ci ñoo ngi ciy sant bu baax te leen ci sant eh, Cheikh Mouhamadou Mountakha cant gi mu leen ci sant moom tufa tabaarakallaahu hmm. yàlla na ngeen ci daje ngërëmul sëñ Tuubaa waaw cat nag bokk na ci nga xam ne an nadaafatu min al iman yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne set ci liimaan la bokk kon nag dem euh, doon na loo xam ne lii sëñ Tuubaa féetal na leen ko neen ci sant yàlla te góorgóorlu ci bu ñu ngi ñaan ñépp ñu jàppale leen ci nag waaw képp kuy gis kuy def lu mel ne xeetu jalgate boo ko mënee signalé nga signalé ko mbooloo mi nga xam ne ñoo nekk ci jumaa ji te di fa yëngu muy ñoom ñi ak Moukhaddamatoul Khidma ñu leen ko wax ñëpp daañu leen ci jàppale bu soobee yàlla incha allah. wan ko itam Serigne Afe Mbacke di imaam ci jumaay Touba noonee it lañ ko wanee ki nga xam ne moom mooy Serigne Bassirou Abdoul Khadr di porte parole xalif général di Mouride. wanaat ko itam ki nga xam ne moom mooy Serigne Mourtada mu Serigne Saliou Mbacké waaye itam daayira xidmatul xadim waxtaan na ci ak ñi nga xam ne ñoom ñooy waa muxaddamatul xidma ñi nga xam ne ñoom ñooy saytu biir jumaa ji ba ci ashaabul janna waaye itam daayira bii nga xam ne moom mooy Touba ca kanam ba ni ñu yegsee ci sëriñ Maam Balla Mbàkke mi nga xam ne moom mi ngi ci biir liggéey bi di daayira xidmatul xadim daayira xidmatul xadim di ci woo mbokki jullit yëpp rawatina mbokku taalibé yi ci bés bu am solo boobu ñuy amal le 19 mai di doon alxamis bii di ñëw ci 17 heures jotee ci fi nga xam ne moom mooy jumaay Touba ci ay poubelle yu yees yoo xam ne ñoo ngi ko defaree ba bitim réew ba koo def ci li nga xam ne moom moo wër jumaay Touba daayira Xidmatul Xadim di ñaanal Serigne Mountakha Mbacké mu yàgg fi lool te wér. liggéey bi moom laal suuf nañ ko yëkkati bu doon lu ñu yëkkati moom laal suuf ilaaw kalimatillahi al-ulya loolu dong muy liggéey bi. antal lazi sanaa